جناحا بصف ملائك بسطوا إليك كفوا بتبارك هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والقرآن متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بكفاء يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعدها والولدان متفرجات في جمال الولدان وعليك برج قد كساك محمد وعليك برج قد كساك محمد في الموقفين بي وفي إعلان وعليك برج قد كساك محمد وعليك برج قد كساك محمد في الموقفين بي وفي إعلان وبوجهك الصافي بوصف باهر أم الكتاب بخطها النوران أم الكتاب بخطها النوران أم الكتاب بخطها النوران يا سيدي يا سيدي يا سيدي مولودي مثلك متعة الأجفان بصدق ده بصدق بمكتبتي آه. السلام عليكم fan yii yépp dañu xaw grippé wut barke rek moo nu fi indi yal na nu yàlla boole defal barke ñu jàng fatiha jàng juróom ñett ci suuratu Quraysh bala ñoo tàmbali ñu jàng ko ci suñu yéene kilifa tabarkam la barakallahu eh nu ngee nu ngee nuyoo ngi nuyu ñëpp ngi nuyu sang yu góor yi sang yu jigéen yi ngi nuyu itam sunu seti bopp yi waa daayira bi waaw mu mel ni itam guddi gi guddi barke la mu mel ni itam Sénégal ci boppam wana gu yonent bi la waaw moo tax guddi gu mel nii muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag ku des ci daara ji ak ku génn daara ji wuti liggéeye ci yam ñëpp tabarkal la soppe yonent bi lañ yal na nu yàlla taas ci barkeem yal na yàlla nandal nu ci leeram ndax Sidi Ahmed si daf daan wax ni Asuma kariyeri de tuvar kara tuvar kara. Öyle bana dedi. Bismillah. ñu may leen ñu chaise yu ñu toog. chaise yi am na moom kay espace la ñu amatul. place kay amatul waaye mag ñoom koy seet. waaye nit ñi dañu. wallaahi ndeysaan asalaamualeykum ñu nuyoowaat marratan thaniya ndax dañu am ay gan tabarakallahu guddi gi nag guddi borom la yonent bee ko moom tabarakallahu mu mel na li Sidi Ahmed si daan wax nee na ku ñu jàngal yem ca képp képp ne doo dem fen waaye nee na ku ñu nàmpal ci weenu yonent bi nee lu mu la jàngal mu barkel loolu la daan wax moo tax tabarkale tabarkale mbiram barkeel mbiru sëñ Babacar si barkeel noonu la ko yàlla dogalee waaw waaw ba tax na euh, Sidi El Hadj radiallahu taala anhu dafa am bayit bu mu indi ci mim yi bay tëba jur njaxas bu bare ndax dafa wax ni wa innahu id araada allahu nashatana abaana nuural huda min nuuri dil qidami mu bari coow sëriñ Babacar ni ko soppi ko waxal abaana min nuurihi nuura nabil alami waaw mu d'accord ci waaye taxul coow la dëñ ñiy soow rek ñi ñuy tuddee ay doomi daara te miinuñu kër gi di soow rekk am na ci ku daan wax ni fii ba eh, xam naa booba xamagul sëñ Babacar Si waaw mu naan fii ba ñagi Tiwaawan maa fi raw waaw waaye boo waxee ba ñagi Tiwaawan ñi ci biir Tiwaawan ci lañu ñu bokk tabarkalla tabarkalla coow li bari ci béyt bi ndax confusion bi dañul ba tey baal leen ma nag dama am girip sama baat nanguwul tabarkalla waaye rek bu ma ñëwul rek duma am barke yàlla atte dimbale leen ba ñu teew ci kanamu Serigne Babacar Sy ñu waxtaan ak moom ci béyt bi béyt bi nag li ci nekk mooy seet soo deful ndànk dangay defe ni yàlla dafa tibb ci jëmm boppam pour bind ci muhammad te loolu mënul nekk mënul nekk ndax ak aliya la tatajaza adaatul aliya la tatajaza waaw te itam yàlla ci cadre wu jóob lañ koy atte waaye muhammad li muy foor yépp ci cadre wu jawaas lañ koy atte waaw bokkul waaw moo tax boo nee yàlla dafa tibb ci yaramam bind ci muhammad dañ lay jàpp yéefër waaw dañ lay jàpp yéefër ndax addatul aliya la tatajaza waaw loolu moo tax ba tax na ñoom ñëpp ñu ñëw di laaj si sëñ Babacar lu ci xalaatam waaye ñoom ñëpp ñu faf jëmbalu ci moom waaw jàppale ko jàppale ko ku ci mel ni Alaaji Amadou Wade ku ci mel ni Serigne Tidiane Niang ku ci mel ni Modou Gueye bu Mbour Serigne Modou Gueye sama bos waaw tabarkalla ak ña ca ndar ñépp nag ku ci mel ni Serigne Lamine Kebe ku ci mel ni sama nejaay junn xarit dërëj ji ndax gëm bu metti rek ndeysaan Babacar Kan ñoom ñépp ñu ñëw ci sëñ Babacar Si bi fi Serigne Babacar Si ñoom ñépp ñu ñëw ci man waaw waaw waaw kenn jàddul kenn jàddul naafeq yi rekk a jàdd waaw waaw da góor gi ma sàmba bu mag ma sàmba mexe lañ koy wax chef de canton yépp a ko fonk te chef la ni ñoom tubaab yépp a ko fonk te chef chef la ni ñoom sëriñ sépp a ko fonk wante chef la ni ñoom dafa ñëw seet si sëriñ Babacar si ni ko man de dama la doon seet si ndax daal bi ma ganee àdduna ak léegi dama yëgul fu ma fi sama borom defee lu mën a xati léegi nag ma àgg fu nga xam ni maa ngi ci wàccaay war a dem te foofa yaa ma ko gën miin ma di la laaj naka lay def ba li ma am fii ma ko foofa loolu rekk ma indi waaye du leneen mu ni ko xaaral tuuti woo góor gi Babacar Jom Njaxe ni ko wol ma Cheikh mu woo mu ñëw taxaw mu ni ko kii de turandoo mën na ko sooy ba nga wax ko ko mu waxal la ko mu jeex tàkk man lu ma wax dama ciy dut baaraam waaw waaw ndax kenn jaraluma ko kenn jaralu ko ba tax na moo nu fi dajale tey tabarkalla tabarkalla ku ne defe na ni yomb na waaye yombul woon mukk waaw waaw yombul woon mukk ba tax na yonent bi ci boppam ku amul morom la waaye yàlla nag du du ci yaramam di ci bind nit mënul nekk kon nag bu nu yeboo muñ loolu rekk mu jeex tàkk waaw bu ko defee ci biir loolu mu mel na yonent bi maamam yi wax naa leen at bu jot ma tuddal leen benn maamam waaye dafa wax ni nag su ngeen demee ba ci àddinaan bu leen ko jéggi te dafa di nitu mesure moo tax mu waxee noonu mais boo jéggee àddinaan itam ku mu am rekk gàcce ngalam waaw kooku la ko may waaye nitu mesure boo ko mayee fukk mu jël juróom jël juróom ya ca des doxale ko ci digganteem ak boroomam ba xam naka la ciy def waaye ku ñu jox fukk nga jël fukk doo nit waaw waaw ku ñu ku ñu jox fukk nga jël fukk doon nit waaw moo tax moom nitu mesure la woon loolu tax mu bu leen jegee àddina waaw su ko defee ci biir loolu moom dafa sex ween rekk ñu commencé di ko yar moom yonent dafa sex ween rekk ñu commencé di ko yar ba mu fer ñu commencé di ko yar ba mu dëgër ñu commencé di ko yar ba mu mat góor ñu commencé di ko yar ba mu mën a liggéey ñu commencé di ko yar ba mu xëy am ñeent fukki at sunu borom soxla ko pour yónni ko ci nit ñi commencé yar ba ñu ko yaroon ñu ni moo baax moo ormal mag moo tabe moo teey moo mel nii moo mel na sunu boroom commencé moom di rocc ci jikko yooyu par benn di sànni di rocc jikko yooyu di sànni ndax amu ci benn bu tegu ci xaqiqa yépp ci àddala tël benn par benn ñu ni moo fonk mag sunu borom ni ko fonkadil mag te mënu ko mënu ko ndax fonk mag dafa jaxasoog deretam waaw fonk mag dafa jaxasoog deretam sunu borom ni ko fonk fonkadil mag parce que mag mu ma weddi jarul ñu di ko wet waaw mënu ko mënu ko ndax ku nekk ak la nga mën ndax mag ñépp ay waajuram lañu te ku ci ne sa pexe dafa bare waaw ndax danga koy teg ci rekk aada te dafay gaaw a bare su ko defee sunu borom ji ko surveiller pour ñu dindi jikko caaxaan yépp ndax ko aada yépp lu mu baax baax ko caaxaan moo baax ak moo moo teey moo mel néeg moo fonk mag ñeeg dara du ci dëkk tappale rek jikko aada yépp jikko tappale la tappale tappale tappale waaw seetal lu gën a metti lool ñeen fukki at nga dund ko li ñu saxal ci yow ñu ni daañu ko dindi ba mu set ndax itam cohabitation mënul nekk ci ñaari jikko jikko bi xaqiqa jur ak jikko bi aada jur cohabitation mënu ci nek sunu borom du ko nangu wa motax mu yulli yépp bu ko ne sagal mak ñi mu bañ du ko man du ko man te bu len sagawul du len ñeme te bu leen ñemewul du jall bu ko defee sunu borom mit comprendre ko jël saga ba ci place am saga mak ñi ba toy xep xam nga ku yalla sagal ko nga moo tax dafay saaga mag ñi ba ñu tooy xëpp xëpp xëpp bu ko defee mag ñëpp jóg du ñu xam fu mu ne pour fa yu ji ñu yem ci yonent bi rek saaga ko ba mu tooy xëpp waaw loolu de moo xew loolu de moo xew bu ko defee moom ñaari coono yëpp wàcc ci boppam waaw amul fu mu jëm waaw ñi ko yar bàyyi nañu ko te yàlla nga ko taxaw bu deful li mu wax rek. parce que yàlla soxlawul otage acteur la soxla waaw te aada otage lay joxe mais du joxe acteur waaw loolu mooy li ne ndax bu la bàjjen yaree ak tante ak nijaay ak bay ñu ngiy wut ci yow lu ñu la moomee te bu ñu la moomee rek ngay seen otage waaw te ku nekk otage yu bàjjen ak tante ak nijaay nekk otage yu société te ku nekk otage société société di sa otage dara man je ko dindi waaw moo sunu borom bañ loolu bañ ko di dindi par benn bañ ko di bind par benn bu ko nee mag ñi ñu bañ moom mu taxaw ko defee moom la ah wax dëgg wa wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfawu min idami waaw pexe amul parce que yàlla leen saaga te gisuñu ko kon nag yonent bi rek lañuy mën a saaga waaw ñu saaga ko ba mu tooy xeb waaw ba tax na mën nañ ci jële ni nañu wattandiku suñu najaay yi nañu wattandiku suñu bàyyi tëx yi nañu wattandiku suñu tànt yi ak suñu bàjjen yi ci wàllu aada réew mi aada lekk na ko ba mu jeex takk leneen amu fi ba noppi nag koo gis mu ni la maa gën a yey ci yàlla ndax maa ngi ci diine ji mais loolu taxul nga nekk ci diine mënul nekk mënul nekk ndax itam sunu boroom dafa xund xund bi mu xund mu jaare la ko ci làmmiñu yonent bi niko ko jur yi ñoma xagn dom yi bi yon waxul ak dom yi de jur yi la wax ni ñoko xagn dom yi waaw sunu borom moom mer nak am procès ak chef de famille wax ni kullu mawlud yulad على الفطرة السليمة ثم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجزانه nee na ku juddu rekk sell nga ba man ngay woteel à cent pour cent nee na way jur yi ñooy tricher naan la yow juif nga te man waxuma ni yow juif nga de ñoom ñoo ko wax di dugal ay pexe naan la lii la Moussa wax walla lii la Tawraat wax te dara du ci dëgg nee bu ko defee ba lañ laa bàyyi boo matee góor buma amé ci yow 30 sax bare na nee wala ñu ni la chrétien nga ni la li la isa bëgg wala li la injil bëgg bu ko défé di la nax di duggal ay aad ci turu injil di duggal ay aad ci turu isa ba nga xëy 100 yima cent ci yow ma ñàkk ko bu bare ba bare ma am 30 pour la wax mu ni itam même animiste yi ci boobu situation la ñu nekk te kenn xamul lu tax mu boole ci animiste yi te reconnaîtreul animisme foofu la affaire bi nekk ñu ni lu tax loolu ñu ni parce que dafa bëgg a rawale li ñuy tuddee la dignité humaine waaye du caagi nit dafa cité diine bu mu nanguwul ni am na du caagi nit daf ko daf ko cité pour nangu ni am na déedéet waaye la dignité humaine moo nanguwul di jaamu garab waaw nanguwoo ko wax naa ko fi ak ñu saaga ma ba ma tooy xepp te dama waxoon duma ci génn waaw ñu dem a dem ba parti bi di ma tontu parti Senghor Senghor ni may santaane wu ma ko de ma ni ko xam naa ko parce que ki ko doon weddi ma ni ko déggul tubaab déggul wolof waaw ma ni ko loolu moo ci nekk wante la ma waxoon ayut dama wax ni guy du yàlla ba ñu di ko jaamu ma ni may maydo du yàlla ba di ko jaamu ma dex du yàlla ba ñu di ko jaamu ma ni bu ci nekk nag man nga ko jariñoo xam ni mbindéef la waaye du tax nag nga jàppe ko yàlla dem nañ ci ba léeg-léeg nit dessiné guy ñëw taf ko ci sama buntu kër ndax provocation rek ma xam ne Sénégal mel noonu ñoom dañu xaw tuuti du ñu janoog yow mu ko wax ak yow waaw dañu lay gannaaw waaw toujours nag noonu la ñuy waaw moo tax bu ñu nee croyant la kenn du ko gëm waaw kenn du ko gëm ndax Serigne Babacar nee na même yàlla seen bakkan la ñuy topp ci yàlla waaye yàlla ci boppam duñ ko topp waaw loolu te lu jafe la nit xàmme ko xam ni yow mii sa bakkan nga topp ci sa sëriñ mais toppaloo sa sëriñ waaw walla sa bakkan nga topp ci yàlla waaye toppaloo yàlla waaw waaw loolu lu jafe xàmme la waaw loolu lu jafe xàmme la moo tax daan na wax ni nee na seytaane li mu dajale ci yool ne kenn xamul na mu toll séddale na ci doomam yi ba ñu doyal li ci des xamul nu mu koy def xam nga fu mu ko jëlee ci nit ñi naan aoudu billahi min asheytaani rajim te ñoom ñoo yàqal seen bopp ba noppi di ko jiñ seytaane seytaane jël seen yoon mu jeex tàkk seetal loolu te moo am nag waaw moo tax góor gi daan wax ni su fekkee ni yow ki lay yàqal xaftaanu basin lay sol comme yow dafay tuuroo lit ko lañ comme yow dafay suuroo cuuraayu màkk comme yow nee na te yor yor lay jóg comme yow nee nga wàcc fa kooka dem ni seytaane yaa ma tooñ ne yàlla jël sa yor yépp jox ko seytaane dara nga ci pexe amu ci moo tax bu yàggul daje nañ ci daje bu rëy ca Rome maanaa layif yi ate yi religieuse yi ñépp daje nañu ni dañu bëgg nag dëgg-dëgg jéem a relativiser l'importance de Lucifer maanaam dañu bëgg daal wane ni ndekke ndekke Iblis demewul noonu waaye fekk na nun problème bi posé nañ ko boobaak ren juróom fukki at waaw boobaak ren juróom fukki at maa wax Serigne Alioune Gueye ni ko bu la Iblis si woon nooy def mu ni ma fàtt ko waaw <laughs> ma fàtt ko ndax ñett rek laa koy tere bu ko defee dootuma mën a lor sama sajaat sama kurus ak pot bi may naane waaw waaw yi ñett daal dinaa ko nëbb ba du ko gis waaye danaa ko ganale ba xolam sedd nag wallaay pour wax la ni Iblis dangereux nit moo dangereux parce que tant que nit collaboré wul ak iblis iblis du man dara du man dara moo tax nit ci boppam moo dangereux looloo tax yàlla bëgg jële yonent bi ci jikko mbokkam yi nag jéem a def ci moom jikko xaqiqa parce que jikko xaqiqa moo moo am solo te it mooy mën a saxal sa autonomie bala ngaa dugg ci communauté bi sinon jaru ko jaru ko parce que bu fekkee loo sonn ci jaamu yàlla itam am na lu dox sa diggante ak yàlla jaru ko jaru ko nag loolu mooy li nga xam ni moo nekk ñoom problème bu ñu posé fekk na fii ci suñu daara ju ñàkk fayda ji ñun posé nañ ko il y a une cinquantaine yàlla xam na ko waaw pour wax la ni mag ñu nekkaloon du ñu ne magu caaxaan mukk te it boolewuñ ko bëgg àdduna nag waaw ndax ñaar yi sëñ Babacar doon wax yépp ñoom mucc nañ ci dërëm ak daraja waaw ñoom mucc nañ ci wax dëgg yàlla waaw loolu moo tax tabarkal la sëñ Babacar jóge fi bàyyi fi ñi mu fi bàyyi ak ni ñu toll ci xam-xam ni ñu toll ci tariqa ñoom ñépp ma solal leen forog ñu takk seen ndigg topp ci man waaw toute une décennie waaw taxawuñu fen ku feebar rek ma yóbbu hôpital bu dee rek ma jullee waaw rek loolu ñu nangu ko tabarkalla la doxal ko ba tey waaye teyit jamono dafa soppeeku waaw ah, coow li dafa bare léegi euh, yonent bi waxal na yàlla yàlla dal ci kaw bàyyi ni ñooy tricher ba tax mu ñàkk doom yi te moom yitteem la mu bañ a ñàkk doom yi te bu jëkk dañ daan dal ci kaw doom ni ko toppil sa baay léegi yàlla procès la am ak wéyjur yi wane ni ñooy dugal di glisser ay aada di ko tuddee Moussa te du dëgg di glisser ay aada di ko tuddee Issa te du dëgg di glisser ay aada di ko tudde guy gi walla dex gi walla may may do bi te dëgg mu ni yonent bi dénoncé ko yonent bi dénoncé ko ba desalu ci dara mu ni ko na ngay def ak jullit yi nag boo leen dénoncé wul ñu ni danga nga sectaire waaw rekk mu jeex takk moo tax mu jóg dénoncé leen li mu leen dénoncé nag daf ko metti parce que ne jullit yi dañoo bari wax ne dañoo bari wax jullit yi dañoo bari wax dañoo bari wax waaw nee na yi dañoo bari wax waaw nee na sarsara ak tafayuq waaw mooy seen jikko sarsara mooy mbel mbel ju dul jeex tafayuq mooy ku dog la si dit bi ñu téyee lammiñ ñu dog ko nga xam ni booy wax dangay mel ni mbaam

waaw loolu lu muy jur moo tax kii ñuy xas xale bi xale bi xam naa ko moom moom du dëgg la tubaab la dëgg la it du jullit mais li mu wax daf ko teg ci yoon muy berk li mu wax ni c'est le verbe c'est le verbe qui a perdu les musulmans mm-hmm. kooku ci waxu yonent bi la ko teg il faut dire la vérité waaw c'est le verbe qui a perdu les musulmans parce que les ne ren les déwén en ko mais doo qu'ils li wax mbel mbel mbel mbel mbel te wax na yonent bi wax ju bare وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير وخجو باري بدون جو خيتشير كون بام دو تلسف ده خمنا كوي وخ بام نخ جزكو نباي وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير مملكة وخ صفنك صفنك mbaamu yont yàlla ay saama kooku moom sañatul ngaax ndax sang baa tax wallaay ndeysaan kooku sang baa tax ñemeetul ngaax mu faf noppi rek yaru ndax xam na ki ko war kan la ñu ngi ciy tooñ benn waay bu yàlla may àdduna mu bew benn lab bi ñëw seesi ko ni ko man de dama am urgence ma bëgg nga abal ma lu ma war mu di ko xool ba mucc mu di ko wan ni ko jëppi naa la daldi ne xale bi indil ko mbaam xale bi indi mbaam mu ni ko duma ko war mu ni ko a ah, léegi da ngeen di rëy mu ni ko déedéet sang ba daf ko waroon man nag lu sang bi war sañatuma ko war kon jox ma ci yaxayti yi ngay war ñu di ko tudde fas waaw mu daanu jël bu rëy ci la jóge dàq collaborateur am yépp ni ndeke bi may xale ba léegi da ngeen may jay rek waaye waxu leen ba seetal loolu parce que doomu kilifa yépp noonu lañu mel dañu leen di cogg ñu defee ni lool rek ay àdduna ba ñu xëy màggat ci waaw àdduna bu tukki bu ko defee ñu jàppee leen otage te dootu ñu rëcc c'est ca des c'est doxal ci seen tur te duñ leen tàggu seetal loolu seetal loolu bu ko defee loolu donné àdduna bu tukki lay doon waaw kon otage lay nekk waaw baaxul baaxul donc noonu rek la bu ko defee bu la wóoree ni yàllaay sa borom te jox na la autonomie da ngay xam sa bopp waaw da ngay xam sa bopp xëy na doo jànni kenn waaye doo topp kenn nit waaw li nga wóolu rek ci ngay nekk waaw ndeysaan dafa am biir soxnaa sukka ni ma man dal Cheikh dama jaaxle ma ne ko lu tax mu ne dama xam ne mënoon nga nopp noppalu ci àdduna parce que boo nangu woon di sol garam bu rek di tedd ci pilian bi ma di la toggal ñu wër la man kay way dem koku ma kay may sa tendel man ko koku dotul dara ma kay may sa tendel te lolu benn mak bo xamni jangal na ma alquran mas na ma ko wax parce que bi fi góor gi joge def ma mere ñu di ko laaj nak yow lu dox sa cheikh mu ni parce que dafa waron di sol manto tok fi bayam dan tok ñu wër ko ñu wër ko man wër ma pour lan loolu kenn mësu ko dégg kenn mësu ko dégg kenn mësu ko dégg kenn waaye noonu lañ ko gisee bu ko defee ma tardel leen ñu tardel ma kooku dara jaru ko ba tax na foofu du yoon wa foofu du yoon wa dafa am bés sëñ Babacar si woo ma ma ñëw ca Dakar mu ni ma defal nangam ma génn rek defuma ko ñu teg ci ñetti ñeenti fan mu wooti ma ñëw xam na ni defuma ko mu ni ma nan ko def defuma ko ñu teg ci ñetti fan ñeent mu yónnee ma kilifa ma xam ni nag ci procès la jëm moo tax muy wut témoin <laughs> wallaay ndeysaan di ko waxal Cheikh mu def ko kilifa gi ñëw wax ma ko defuma ko waaw mu ni pat ma ni pat ñu jeexal tournée bi dem ci Tiwaawan mu daal di woote nag woo sëriñ Alioune ak sëriñ Moussa ñu représenté tariqa bi mu woo soxna sukkan ak soxna umm ñu représenté famille moom mu toog nii man ma toog nii ñuy juróom benn mu ne waaw parce que dafa am lu ma ko wax te defu ko ma ni ko parce que bi nga ma koy wax danga ma ko wax en tant que chef de famille te chef de famille nag njabootam nawle nawle la ñu waaw ma ni ko te affaire boobu am naa ci élément yoo amul mu ni ma yan la ma wax ko mu taf gémmiñam noo mën loo ma ko wax ma ni ko ah, naka laa la ko waxee ak sa mère kon du ma la ko wax mukk waaye duma ma ko defit waaw waaw ah. waaye ma yëg ni ba mu ca jógee dootul def lu mu diisuwul ak man waaw ndax xam na ni lu ma ca war a lank dama koy lank waaw loolu ci nekk ba tax na yooyu it danga ciy bàyyi xel waaw yooyu danga ciy bàyyi xel bu ko defee ndimbal lay doon sax ci ñoom

baaxul ba tax na kon loolu mooy li nga xam ni moo nekk yonent bi sonal nañ ko ba mu ëpp ci mu weddi mag lu tax mënu ko li mu siiwee ni dafa ormal mag loolu rekk la du leneen waaye nag mag mu weddi yàlla kay wili pande ko aayul ah. ah. wili pande ko aayul mata tax ko yàlla ni ko bàyyil ma def ko à ta place ma sagalen leen toy xeb mu ci gënon fonk nga xamni koku buñ ko don reyit du ko yàlla traité ko de hamazin mashaim bi namim man in lil khair mu'tadin athim sago ko ndey saaga ko bay min ci alquran koka xamni ni ba baa dunay tukki alquran di am lolou di am momi te mo fay ci yonent bi saaga ko ba jaratul ñaar dërëm dafay fayu parce que yéeféer la loolu pour wax la ni wattandi ko aada faratal ku aada lekk mënatuloo def lu la amal njëriñ du ci àdduna du ci àllaaxir loolu mooy li ci nekk looloo tax nga xam ni li ñu ko sëfoon metti na parce que ku dem ba am ñeen fukki at jikko ya ci am ñepp naw ko ñu di dindi par ben di sanni lolu metti na di dugal nak jikko yo xamne haqiqa ko bot waaw te jikko yoy rek am solo waaw jikko yoy rek am solo mom na la ñepp bayyi waye yow na nga daj sa bop waaw nga daj sa bop waye bu fekke kilifa lay jappale nak ku la wedd sa du la ko won waaw

boo dee chrétien mu ne yaa tudde sa bopp chrétien yàlla tuddewu la ko waaw seetal loolu ba tax na ko nag sunu borom ma ngi koy ëkku ba xam moom it lu muy def parce que on sait jamais ba sa bakkan dafa am doole waaw balaa nangu ni yonent bi def ne mission bi rek muy bés bi mu koy déclarer ni ko sa mission jeex na waaw ba ba muy toll foofu du nangu ni ñu ngi ci yoon te dal lool waaye ba mu demee ba xam ni tudd tuddewul jullit yi muhammadi yoon tuddewul jullit yi muhammadi yoon tuddewul ayatul quraan yi qurashiyaat tuddewu ko hashimiyaat yàlla xam ne wàcc na waseet ca la ko indile al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum niamati wa raditu lakum al islaama diina waaw mu jeex takk wàcc na waset waaw foofu la ko si biiru jàppe si biiru booba ko yóbbu àllaaxira waaw nga xam ni bégul benn yoon ci dundam coono rek waaw lu mu ñaan yàlla mu may ko domb ko lu ko ëpp ci boor bi waaw ndax keroog bi mu ko ñaanee ci xaswatu badr ni ko naa ko dàq te amul lu dul une poignée de de faible waaw ni ko naa ko dàq te tuuti ndaar mee ngi ci kanamam mu ni yàlla naa ko dàq naa dàq ñii waaw ci ñu néew ñi ànd ak man amuñu dara waaye naa dàq waaw seetal loolu seetal bii ñaan ak bii taxaw ak bii tiñal seetal loolu ak bii tiñal Muhammad tiñal yàlla ndax ba mu ko waxee ñépp dégg na ñaan gi waaw ba mu ko waxee ñépp dégg nañu ñaan gi waaw ca la ko waxee ni ko ñii ñàkk solo ñii taxaw boo leen bàyyee ñu alku dootulee dootuloo am ci kaw suuf kenn ku la jaamu jaamu gi yàlla ci sa wàll kon nag li ci des man je m'en fous waaw daal di taxaw fële la leen dugg ba ñu gañe xare ba xamuñu waaw xaswatu Uhud ñëw ñuy tiitaru yàlla fexe ba ñu gañe leen waaw te keroog la ñu ëpp mbooloo ci la ñu ëpp ganna yàlla fexe ba ñu gañe leen parce que léegi adressé tuñu ci yàlla ci seen tiitar seen tiitar ñu adressé waaw la du leneen pour wax la ni yàlla Eh, gis nga ki bind téere boobu te ñu di ko soow noonu def naka la ko waxeeti euh, un risque qui s'appelle prière ñu ni yàlla santaane prière naka lay ti risque loolu mënuñu ko dégg ma ne xanaa jàngu leen Sidil Hadj Malick Maodo wax na ni booy ñaan yàlla bu ko ñaan lu dul farata mukk boo ko defee mu gaañ la ndax dafa xam ni danga koy fonto mag mu toll ni yàlla di gérer des milliards et des milliards d'univers par jour amul loo koy ñaan lu dul akara wala beñe loolu mënul nekk loolu mënul nekk bu ko defee boo ko ñaanee lu dul farata mu gaañ boo ko ñaanee farata it dafay seet farata bi ndax sa priorité la wala du sa priorité bu dee sa priorité mu def ko bu ko defee it dina xam ndax mat nga ko wala déet ci la lay dompe waaw domp bu metti di seet ba xam lan la def na ko Muhammad ci xaswatu Badr def na ko yontu yàlla Suleymaan ca projet mi ya parce que yontu yàlla Suleymaan dafa xëy rek yàlla def ma yonent def ma buur waaw bu ko defee sama yonent protéger sama mbu buur sama buur protéger sama yonent te loolu bëgguma ku ko amati ci kaw suuf yàlla ni ko jox naa la ko yàlla ni ko jox naa la ko moo tax keroog bi Sidna Omar di wax eh, yonent bi ni ko jógal nag waaw waaw ndax yonent baa ngi ñu ngi koy wut kenn gisu ko wallaay ndeysaan ñu ngi koy wut kenn gisu ko ma nga ndeke ma nga lal benn sagaru ndës ca ko ñu jàkk ja tëdd fa parce qu'il était fatigué fatigué fatigué laa wax waaw ba si ko fa ni ko góor gu baax gi ay waay jógal wàcc adduna yépp ngi dagg wut si la buur bummi prince borom alal borom xam-xam ngay tëdd ci nis gu bon gi ndeysaan mu jóg bu bu bu bu bu yaru bu yaru ni ko danga bëgg ma soppi nubuwa gi mu nekk nguur loolu nga bëgg léegi mu sog a fàttali ko ni ndekke ci daara la nekk waaye nekkul ci nguur waaw mu dal koy tuub mu dal koy tuub parce que fàtte woon na ko ndax yonent bi àggoon na foo xam ne dafa woon nañ ni dafay xëy rek ni maay buur bi te bu ko defee rek sunu borom fu dundi gam amul sax werante waaw looloo tax ñemewu ko waaw ni ko aturiduha kisrawiya waxam bu gàtt ba kenn mësu ko dégg aturiduha kisrawiya wallaay ndeysaan si naa Umar di lox xam ni nubuwa bokkul ak nguur du benn nu bu ba kay nu mu rëy rëy borom dafay nekk ndongo daara waaw waaw nu lu mu rëy rëy rëy borom dafay nekk ndongo daara bu ci génnee rek yàlla yatam wa dal waaw loolu mooy li ci nekk ba na Sidna Omar mu na <laughs> mujj na nag xaw def nag parce que moom tendance am moo doon rek organiser mu nekk nguur ñuy nguuru te baaxul de waaw donc du nguuru bu nguuroo rek àdduna tukki waaw maa la ko wax waaw maa la ko wax ba yàlla barkal tabarkalla loolu moo fi nekkoon pour yonent si bi waaye yonent yàlla Daawuda moom bëggul loolu li mu bëgg mooy yàlla jox ko nubuwa jox ko nguur bu ko desee nguur gi protéger nubuwa gi nubuwa di protéger nguur gi yàlla defal ko ko nag bàyyi ko ci nag ci ndaataata lax waaw bàyyi ko ci nag di ko seetaan mu dem ci ba dajale ay projet yoo xam ni kenn xamul na mu toll dëkk mu ne mu ne dafay def dara dema dema dem ba amatul lu mu lekk ñaar dërëm amatu ko bu ko defee mu woo chef architecte yi mu ñëw iram ni ko naka la ñuy def mu ne kaa man kay xaw ma ko parce que man li ma amoon yëpp leb nga ko te doo fay bar ni ko nag man bu ma waxati sax lu jëm ci projet danga may rey benn yoon parce que amatuma dara waaw lépp leb nga ma ko mu jaaxle lool urus lol sunu borom wa afariti afarit minal jënn ni leen ci journée bi la bëgg ngeen jox ko budget yi mu soxla yépp waaw afarit yi tëb bi six heures di laata jot fu wurus nekk indi nañu ko fu jamaan nekk indi nañu ko budget yépp ñu teewal ko mu soog a commencé di liggéey chantier yi nag chantier par chantier wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kenn mësul gis lu mel noonu waaye mu juum ci neex-neex bi jàpp ko ba waxtu wi mu daan ñaan yàlla waxtu wa paase ndax ay fas yu rafet yu muy seetaan ak di kontaan ak di tiitaru ba waxtu ba paase xamul na muy def mu ni sunu borom jant bi ba borom delloo jant bi ba fa mu daan ñaane mu ñaan ba noppi sunu borom bàyyeeti jant bi mu delloo fa mu nekkoon waaye ca chantier yàlla ko reye amul amul taxawaay sax waaw ca chantier la ko reye te li mu doon ñaan mooy dee ca pale ba waaye ca chantier la dee te ñiy liggéey kenn ñemewu ko xool du jinne yi du nit ñi ñuy def kër kër kër ndeke dee na bu yàgg yàlla yebal yàlla yebal max waaw ni ko lekkal tuuti ci catu yat wi ndax mu daanu ñu xam ni nit la waaw mu lekk ci catu taan bi mu daanu ñépp yooxu jinne yàgg nit ña ni ndekk góor gi nit la comme ñépp jinne it ñu topp leen yuuxu leen ni leen yeneen ni woon lu nar a am ngeen xamu ko te xamu ni góor gi dee waaw seetal loolu moo tax yàlla bu la mayee dontu la man loo ci dara gis nga avariit yi lu ne mën nañ ko waaw am sama benn baay bu ñu wax lay ji jëli baay mu ni ma man daal dama am koo xam ni najaay la ci man gaal te sa njabootu maam Sëriñ Tuubaa la mais daf ma wax ni ma na ngeen wattu ñaari ci seen liggéey na ngeen wattu wurus te na ngeen wattu jama mu ni nag man mu ni man moom ku yaatu xol la parce que tudde na la yow doom ba doom bi mag la léegi te defe naa waxagu la ko ma ni ko déedéet waaye ku ko jege nag te dëkk ca mbooro moom ko jëkk wax mu ni ma ma foog ni affaire yooyu la ba wattul ñoo ko def seen alal ba tax ñuy tere ku ci liggéey ci wàllu wurus ak wàllu jama euh, ma ni ko pourtant spéculation foncière ci la bokk ma ni ko nit ñi def nañ ko aada waaye baaxul ci mujj ma ni ko nag wante Maodo nee na ad darurat tubixul mahdurat waaw nee na euh, lorooy tax góor di lekk midd waaw kon nag pexe amu ci ma ni ko moo tax euh, euh, imam Shafii moom woote ci loi wane ni nit mën na ko jëfandikoo parce que si naa Umar bi ñu ubbee Makka ba mu ak